wax nga ko léegi ne moo gën dafa dafa nekk coow yàggul dara il y quatre mois ñu annoncé ne que ne dafa def benn soirée buy am ci euh, Times Square euh, bu ñu war a tëgg genre défilé de mode la en même temps dañu war a invité di Diop euh, mu ñëw Sidi Diop mu ñu mu ñu gars yi annoncé événement bi boo war a jaay billets yi amoon na sax ci Wally Seck avant ba war a jaay billets yi événement boobu amul fekk gars yi dugaluñu seen visa sax Sidi Diop dañ ko rejeté le visa am mu jul am ndax coow yooyu ndax li wax Euh, est-ce que seen liggéey bi ngeen di liggéey yow en tant que koo xam ne jég nga moo est-ce que yéen am am ngeen expérience ci liggéey bi ba fay yu mel noonu di leen mën a dal couple si muy ñëw di amaat ñu am événement gars yi amaguñ sax rendez pour déposer visa ah, yi ngeen valider événement bi jaay ticket yi ñëwaat en même temps tëggaat beneen événement nga xam ne artiste bi amul visa est-ce que loolu tamit euh, kii niwul ñàkku du ñàkk professionnalisme yow en tant que ku jege quand moo gën bi nga xam ne ne yéenay tëgg soirée yi non euh, comme ni nga ko waxee ci soire yi euh, moo ko ne xam na ni yàgg naa tëgg soirée muy réussir kon bu tëggee soire moom problème rek y a quelque dafa am problème nag yoo xamante ni mën nañ ko wax ci kaw mhm. am problème yoo xamante ni kenn mënu ko wax ci kaw mhm. mais nit ñëpp dañuy juum moo am na yéene yéene la am mhm. mais yéene boobu est que Euh, loolu sunu borom war na ko dogal na ko loolu itam dañ ciy wax. Mhm. parce que problème fu nekk lay am. Mhm. mais li ma xamante ni mën naa ko ci wax ba wax ko ci mooy. Mhm. Euh, soirée yi nga tudd noonu ñu dem ba am problème problème ya ca am ay erreur la yoo xamante ni am na ci ci camp wu euh, Sidi Diop am na ci camp wu gét Gates te boo xool sax am na ci loo xamante ni kenn mënu ko wax mais euh, problème daal am na am na nekkul lom te ne am na mais defe naa ni euh, ñi ngi ci yoon di tëggaat lu ne mel te te incha allahu rabi dinañ ko réussir. bu soobee yàlla. <laughs> mais gisoo ne ñàkk professionnalisme la. ñàkk professionnalisme non gisuma gisuma ci ñàkk professionnalisme mais euh, xam naa ni li may li may li may li may conseiller sama xarit moo mooy que ni. Euh, nañu nañu nañu nañu gën a xoolaat liggéey bi quoi so loolu rek laa koy conseil na xoolaat liggéey bi yow en tant que àndandoo moo géet jàppo ne ay lampam daa fay temps yi déggatuñ dara ci moo géet euh. moo waaw tey la làmp yi gën a leer lamp yi fayul seex naa génn ci li nga nekk moo ay lampam électricité du ko taal lu koy taal <laughs> loolu leneen la ah lamp yi daa mel ne gëmm na de noo xam nga xam nga xam nga lamp lamp yi fay mhm. mooy yi électricité di taal mhm. kooku bu électricité bi jeexee wala boo bu sa facture courant ñëwee. te fayoo ko euh, courant bi mun na fay lamp yi mun na fay. moo gën amul arrière kon. non non non non non non ma la wax. moo tay la gën a tàng moo bërki de moo njaay la nam yàpp gileem. Mhm. ne day ne ne day jënd yàpp gileem yaa gaay yi yaakaar day dem peese ji mu wàccee gileem teg. ak mhm. kat béy kat xat kat xar yu ndaw. Mhm. laal michu yu neex. toog te reer la woon. kooku ay làmpam bu fayoon dina dina jënd loolu yoo xam nga gileem ñaata lay jar làmpam lampam fayut déggalu mu làmp yi mu yor électricité yii nii du ko taal. génne <laughs> ci li nga nekk. <laughs> d'accord.